السيد مختار بالملتقى ونسأل الله تعالى أن يجعل البلدين المغرب والسنغال في محبة الله ومحبة الرسول ونسأل الله أن يحفظ البلدين من هذا الوباء وأن يبعد عنا كل الشر كذلك كذلك نريد أن تبقى هذه العلاقة الطيبة الحميمة بين السنغال والمغرب في جميع المجالات walhamdulillahi taala wa barakatuh والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشكرا كثيرا ماذا تريد أن تطلب منه مشاركتي معنا في هذه الحفلة الم... نعم نحن أتينا قبل حلول اليوم المناسبة لمناسبة المقال ولأول مرة أحضر لها إن شاء الله وهذا ل... هذا لي شرف كبير شكرا waaw nee na mi ngi ginnaaw bi mu sant yàlla julli ci yonent bi mi ngi nuyu waa jotaay bi leen siyaare nee nag li ko fi indi moom mooy soxna am Amsatou Sow Sidibé la àndal ngir ñëw siyaare si dëkk bu tedd bii di tuubaa waaye siyaare ki nga xam nit moom la yàlla jiital ci dëkk bi te muy sëñ Touba muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassir nee na nag lu jiitu loolu day ñaan réew ma mu bàyyeekoo di Maghrib di Maroc ak réew mi mu fekk si di Sénégal sa borom dolli fi jàmm dolli fi xéwatu yokk fi sutura nee li ko a seddu xolam nag mooy. relation bi nga xam ni Maroc am na ko ak Sénégal muy relation bu rafet alaaxa yu yu yu yu rafet dox seen diggante yu yu teey te sell nee na loolu it muy loo xam ne mu ngi koy seere nee na jàmm ji nga xam ne am na Sénégal nee na moom lu sedd xolam la kontaan na lool ci nekk Sénégal ak nekkin gi mu fi nekkee dëkk bii di Touba bi mu ñëwee nee na ku fi dugg si lislaam da nga yëg sa xol ku fi dugg si xam ne kii fi kii fi woote bis bi lëggeel na yàlla lu ko yàlla gërëmee nee loolu moo doonoon jéego yi. mu ànd ak soxna am Amsatou Sow Sidibé mi nga xam ni kenn du ne gan la ndax fii mu ñëw mën na fee dalal gan mën na fee yewi gan ndax dëkk ci réew mi di mbokkum ñëpp liggéey ci réew mi lu tax fuñ ne benn jigéen ñaar def la ngay ñetteel mbaa ngay première mbaa deuxième loola defe naa ni ku ko am cim réew tey jigéen loolu taxawaay yu am solo la kon daal ñu ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba saa borom jéegooy ñëwee jéegooy dem yëpp yal na leen ko defal ay yiw ñoom ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo ca réew maxrib ñëw fii seere seere yu am solo yi ci Touba seere ko ci sëñ Touba loolu dana gën a dalaat suñu xel waaye nun murit yi ñu gën cee soññ ko waat xam ni la sëñ Touba waxoon na Seex ma Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko mbaa fere yi duñ ma wor mu ne ko Mbàkke kenn du la am di la bàyyi mu ne ko wor ma mooy nit xemmeem ma jëm si ci man yem ci yéen dëpp waaye ñoom lu baax lii ni seere sëñ Touba ak li nu gis sëñ Touba war naa tax nun it ñu gën a defaraat suñu toogaay gën a nàmmaat suñu laxasaay ba kuy xemmem sëñ Touba bu ñëwee ci ñun lam doon bëgg ci sëñ bi loola gën a yokkoo ci ñun nee na nag gannaaw bis bii day bisub ñaan di màggal gi mi ngi ñaan ya nee na mi ngi gën a julli ci rasulillah te di ko dolli ñaan di ñaan nag ci barke bis bi yàlla def jàmm ci àdduna bépp def ko ci sunu diggante yi ñaari réew yi nga xam ni sekk nañ alaaxa yu rafet yi sa borom dolliñ suta dolliñ tawfiya te làkk ko foo xam ne yàq àggu fa nee na defal ko it buuru Maroc bi nga xam ni mooy roi Mohammed VI moom it sa borom kàttanal ko te dëgëral ko te sàmm ko